lan nga parce que discours bi am na point yu bëri yu ñu ci wax euh, déjà maag Pape Sané waxtaan ci ci lu bëri surtout rapport IGE yeeg euh, yi nga xamante ne Cour des comptes OFNAC yi ñu war a tegaat ci table bi saytu ko waaw am na je pense que Pape t'a super bien résumé mm-hmm. euh, mais démb bi ma dégloo discours kilifa bi xam nga nit buy wax da nga kaa xam mm-hmm. nit le président Macky Sall nanu baal nag ah bii yoon moom dinaa ko baalu ci loolu mm-hmm. Moi, je le regardais et j'avais du mal à me donner à, à, l'entendre. Pas à l'écouter, à l'entendre. Mhm. maanaam dem naa ba du ma dégg li muy wax. ndax xamoo fa mu jëm. non tellement. quand j'ai regardé Bassirou Diomaye Diakhar Faye muy wax démb. y a benn moment où j'étais ému. Mhm. xamuma ka je le découvre et j'apprends di xool. di déglu yàlla bu yaakaar bi tas yàlla bu yaakaar bi tas et hier à je dirais pas à l'unanimité mais bu fekkee da nga déglu ak xel bu yàggee xol dina dugg mm-hmm. boo déglu ak xel après bu yàggee xol dina dugg di nga xam ne euh, y a une pureté qui se dégage dans le discours ok c'est important mm-hmm. gis yi ngeen fii énuméré yëpp wax ko fii yëpp yëpp yëpp ngeen wax ko ak justesse ba ci niñ ko dégloo les rapport dont tu me parles la profondeur à la limite pour ne pas dire la sainteté mhm. d'état d'esprit mhm. mooy transcender loolu yëpp saa yi ki jiite réew ba jikkoom baaxee réew ma baax mhm. surtout bu jubee jikko saa yi jikko xam-xam baax na de xam yoon beeg yooyu le protocole jub jubal je par exemple le protocole Pape t'en a nga xool service protocolaire bi yëpp pourtant ci protocole bi ak cee bëri loo xam dañ kaa war a dindi. Mm-hmm. comme lan caq boobu nu kaa takkal bu waree waat caq ba dañ ko war a dindi. caq boobu caqub lan la. bu ka xam. Ah, caq franc-maçon ah, non man man man leeruma xam parce que aussi loolu depuis depuis depuis euh, l'époque coloniale ba léegi mais sem da ngay gis président ñu taxal ko caq caq boobu ñu taxal moom mais il faut ñu expliquer Sénégalais que ban ban valeur emblématique la am wala lan lan la caq bi di signifié caq bi dañ ko war a dindi mais góoru taq caq ak ah, góor taxab caq de. dañ euh, ko dindi benn takkal ka xam nga il faut que lu fii bi ngeen di wax sànq affaire tubaab lépp lu tubaab defoon. Mhm. ci ñun indépendance day mat ay caq ak waat bi. je mhm. donne l' exemple de waat bi par exemple euh, fële ca salle d' exposition bu Diamniadio. Mhm. on a la le conseil constitutionnel derrière. maas yaa ngi gis. dañ leen am ci ginnaaw. au nom de quoi kii waat war a woon gannaaw ñi muy wax ñi le peuple. muy ñi le président il se retourne il donne le dos. au peuple jàkkaarloo conseil au peuple jàkkaarloo conseil conseil alors que alors ñi muy waatal ñu ngi jàkkaarloo ak moom boo leen wanee ginnaaw waat dafa bokk dafa bokk ci ci li tubaab def mu bon. Mm-hmm. saay ba nit <laughs> nañ ma baal ba nit de ba seq ak doomi aadama. Mm-hmm. moo xam mu la góor wala mu la jigéen ba bala wanee gannaaw. pour nu rafetal ko lu ñoo wax eh bal ma kii de <laughs> dégg naa la wax bi. bal ma um. waaw baal li ngaa def. wax léegi nga jiite réew waat jàkkar war a jàkkaarloo ñii wala leen gannaaw ça fait partie des tares de protocole boobu tubaab bi tegal ñu. Mm, absolument ce sont des choses à enlever nga dindi càq bi ak yeneen ak yeneen. le conseil constitutionnel lan moo tax aux États-Unis mais euh, nga baal ma foofu caq bi caqub lan la. non non intéressé wu ma. déet parce que caq bi non bàyyi ma wax la parce que boo taxaw ne nañ dindi caq bi. war nga war laaj ma la kaa dindi. lu tax daxa rafetul sax jekku la la posture du président bu bu bu ko bu ko takkul ak bu ko takkee c'est différent mel nëpp njulli. mu takkal ka nekk non dañu waxante dëgg rek gis nga tubaab tubaab dafa tubaab tubaab mu ñu samp bon. très bien daf ñu samp lu bon. te loolu faw mu deñ gis nga tey jii nii l'indépendance dont on parle way nu ñuy doxalee et cetera ba ci discours bi ba ci plein de choses. hier lu tax ma ne la la pureté. Eh, de, de, par rapport à l'état d'esprit en termes de sainteté moo ne j'ai écouté quelqu'un qui parle en profondeur absolument j'ai benn nit buy wax li nga xam ni mhm. c'est-à-dire que pas bëgg a dégg mais li war a nekk te ba muy jeexal ba muy jeexal jafe na sunu chef d'état yi euh, sama maam Ablaye waat daan na ma ko si dégg defe naa le président Diouf peut-être mais il il nous a manqué quelque chose à un moment donné. Mm-hmm. mooy xool leen dans nos entreprises tubaab dafa dem ba gëmloo nu ne comme ñoom lañ koy defee seen dëkk yi non doo julli ci service bi. Mm-hmm. absolument comme ni ñu koy defee ñoom seen dëkk ñoom tubaab no boo amee ñaari jabar doo fi nekk ah doo doo kenn ki du légal ah doo fi takk voilà ah. ñoom am nañu fulla yi seen bopp ñoom lañu bëgg a lijjanti. ñu lijjanti ko loolu indépendance la. absolument Charles de gol ba mu dawee Londres def 18 juin 1940 sa déclaration. Mhm. maréchal Pétain abdiqué. Allemand yi jël affaire yi nan la Charles def woote wàllu africain yeeg ñëpp jël. ñëpp dem ca la or ba mu sàccoon. Afrique de l'Ouest jëlaat ko delloo da yabaat ko ci ba tey ñu làq leen ko fii ñu pare delluwaat. Mhm. qu'est-ce qu'ils ont fait ba guerre ba jeexee Charles def déclaration ne arme armée américaine jërëjëf jërë ngeen jëf. Mhm. merci am mu ngi leen di wax jaa jaaraw làkk. Mhm. léegi nag mun ngeen nu abal sunu dëkk. dégg naa la ngeen koy wax sànq. Mm, donc loolu du débat c'est-à-dire c'est quelque chose boo xam ne Abdoulaye Wade réglé woon na ko le président Sall ñëw moo tax le mal que ce président nous a fait. Mm-hmm. du ma tay di ko wax en passant parce que benn moment nag <laughs> dama doon dëgg bal. Ah, dem na léegi <laughs> dana wax sana xalaat mu gën a egg. Mm-hmm. mais juste dire. que ces histoires de protocole lu ci bëri dañ ko war a dindi dafa bokk ci lii tëj dëkk bi. gis nga tant que ñu ngi fonctionner ak réglementation tubaab boobu mu ngi wax ni way nii ngeen di taxawee euh, way bu ngeen di lever drapeau il va falloir mm-hmm. dañ ko war a dindi. Mm-hmm. dañu war a dem ci paradigme yu bees ne ñun yëfi Sénégal nii lañ kaa doxalee. Mm-hmm. su ñu defalee nii lañ kaa organiser. parce que saa waay. et puis discours nga wax ak sénégalais yi. comme il l'a fait hier. il l'a fait à la fi bi muy tëj discours am à wolof. bésub jàmm ak indépendance jàmm ba suba. Mhm. suba ak jàmm bésub indépendance jàmm et cetera daal di kaa jeexalee incha allah. Mhm. bu dee catholique mu wax kat bu ñu waree waat catholique bi na chrétien bi na waat ci bible. Mhm. bu dee juif la mu waat ci tooxa. bu dee jullit ñu tegal bu dee jullit les trois religions révélées. monothéiste bu dee jullit mu waat ci alxuraan. américains yi dañ naan in God we trust. we trust lu tax américain bi suy waat. conseil constitutionnel du nekk ci gannaaw cour bi le le procureur du xam nga fu ma nekk magistrat yi nii. Mhm. aile gauche bi moom la président taxaw jàkkaarloog américain yi. Mhm, absolument looluy yëpp nag dafa bokk ci loo xam ne le nouveau président daf nu see war a dimbali. dimbali waaw couper ak ces détails là. Mhm. yeneen ak yeneen yu ñu mën a wax yu ñu mënta wax. Mhm. gis nga fee nuy wàcc ne ca place de la nation be wàccin ba sax dañ ko war a xoolaat. absolument bu défilé day am année prochaine incha allah wàccin woowee. Mhm. wàccin woowu déggoo ma de. Mhm. wàccin wax. wàccin wax waaw ñëw ba jub daal di wàcc mel ni ñooñu. waaw dañu ci war a dimbali. ak yeneen ak yeneen gis nga réew. jàngat gu am solo nga réew dafa am lu kaa samp sa waay. moo tax moo tax sànq laata ngay ñëw. Euh, ma posé question bi Pape Sané ne ko est-ce qu'on peut non. fi mu nekk nekk sous de l' armée française c'est-à-dire que tant que hmm. mu ngi fii. Hmm. tu n'es pas indépendant Pape wax na la ko benn moment ce qui se passe à l'aéroport est immonde c'est inimaginable yow mën ngaa xalaat ab soldat américain di taxaw aéroport euh, Charles de Gaulle wala wala wala wala wala wala fële xel xalaatu ko xel xalaatu ko euh, mënoo ko imaginer xalaatu ko c'est-à-dire que soldat ab soldat étranger ñëw ci dëkku jàmbur taxaw di dox ci aéroport bi sol tenue dëkk moom xalaatu c'est pour te dire donc yooyu nag tey ñiy wax dëgg fa yàlla le discours que j'ai entendu hier j'ai dit allons-y mm -hmm. fonçons dans cela okay. le président dit ñu ngi respecter ñëpp mais ñëppit nañ ñu respecter mm d'égal à égal avec à tous égal. les partenaires mm -hmm. ça veut dire ce que ça dire léegi nag maa ngay gis tubaab yi dee si xool tubaab yi léegi-léeg seen médias yi bu ñuy waxtaan ci ñun est-ce que le président Bassirou Diomaye fay ñoom iñaana nañ sax tout tudd Diomaye beeg yooyu Bassirou fay ñoom ñenn ñi Bassirou Faye ñenn pour te dire. Mhm. Euh, est-ce que euh, oui le, le président Macron l'a contacté oui ou non il, sait quoi certainement la coopération euh, franco-sénégalaise va pouvoir <laughs> perdurer il parle de perdurer <laughs> maanaam mais dañoo am fulla nag ñoom la ñu bëgg sëñ bi euh, ca la ñuy dox maag Pape bu ñu taxawee di négocier Pape du am fu lay xool li mu bëgg mu wax ma ko. Mhm. ne ma man lii laay ci jël. Mhm. man tam ñu kii ba d'accord léegi tubaab nag day ñëw ne bon du la wax lii ngay jël de wala lii laay jël day ñëw ne boo lii pour yow la donc yow fii nga yem mhm. léegi li si de yëpp dinaa la ko gérer jël waxul jël naa de dinaa la ko gérer nga doon naata xóona noon di 44 nangu. <laughs> naan way tubaab yi bu lakk ah, amee sax ñu woo leen armée française ah. ñu dugal culture boobu ci ñun mhm. ba ba sapeur pompier sénégalais mënu kaa régler parce que sapeur pompier sénégalais moom nguur bi jiite réew mi mhm. amul fu lay mettre ko dans de bonnes conditions jox ko ce qu'il faut pour mu def ko mhm. tubaab da kaa gëm la toujours ne ko non non non je je gère je suis là y' a pas y' a non ne vous en faites pas monsieur le président loolu c'est c'est vite réglé bu kii bu leen woowee rek on débarque moom daf lay assouvir c'est-à-dire wàcc la def la dugal dans la dugal la dans la servitude yow nag nga nga nekk naan i tubaab bi yàlla da leen may mhm. yow yàlla may la nga ëppale ko ba mu def sa suuf moom mu ñëw nax la nga nag nga yàlla da koo may loolu nag la kilifa bii bu bees bi ak équipe yi mu àndal Ousmane Sonko ñoom ñëpp loolu lañ ils l'ont réussi en partie en grande partie mhm. ci seen discours depuis dix ans maintenant il faut mu concret Naam, on nous dira, ah, attention, l'État. Oui, l'État. Oui, par rapport à la CDAO, oui, par rapport à la monnaie, il faut y aller très progressivement, mm -hmm. et si subtilement pour dire en majeur. ok waaye foofu nag nga wan ñeneen ñi ak tubaab yi yëpp ne leen déet affaire bi changé na. d'égal à égal. soppeeku na léegi lii la ñuy def ba pare ci biir lii la ñuy def yow da yow naa la wax benn affaire ma dee la ko. waaw ah, dégg <laughs> Pa Assane dem mais nag Pa il faut il faut il faut aussi d'abord euh, comme li nga wax sànq parce que man yaakaar bi ma am mooy dama gis euh, une jeunesse décomplexée. waaw hmm? euh, un nouveau type de politicien décomplexé. Mhm. benn genre luy pépite buy judd ci Afrique keroog li koy wane li koy firndeel mooy Pape Sané boo gisee keroog bi prestation de serment Bassirou Diomaye Faye. oui bi dumb yaa duggee. Mhm. waaw bi dumb yaa duggee. ak le président du conseil malien sénégalais dañoo tàcc. le président du conseil malien ñaari soldats yi ah. ñaari soldats yi sénégalais yi.